Euh, comme ni ñu ko waxe sànq dañuy ñëw rek ci kàddu Kocc Barma faram-fàccee tuuti li nga xamante ni nii moom la suñu camarade bi wax léegi di wax rek ne li nga xam ne moo gën a am solo mooy dama bëggoon balaa loolu fàttali tuuti ak wax loo xam ne daf ci xew ndax démb parce que loolu dafa am solo ñuy wax pour xam ne waxoon naa fi ne ñoom seen performance mooy ngénte doom yu ñu jur ngénte nañ ci BRT ngénte nañ ci yeneen ak yeneen démb le 17 yéen taskatu xabaar yi ci yéen sax laa ko déggee yéen ñu ko yëgal ndax ñoom lépp loo xam ne lu baax lu ñu def ci réew mi la su amee dañ koy làq waaye àdduna bi moom ba internet amee ba tey kenn mënatul làq lu baax le 17 démb ca Londres Londres ci la ñu décerné benn prix prix premier prix ak de ñaari prix la ñuy jox BRT et le projet de bus rapide transit de Dakar a reçu deux distinctions lors de la 36e édition de Global ESG 2024 qui s'est tenue à Londres le 17 octobre. Le Conseil exécutif des transports urbains, maître d'ouvrage du projet, a annoncé que le BRT a été récompensé dans le secteur des infrastructures de transport urbain le premier prix de transition énergétique infrastructure a été décernée à la première ligne de BRT au monde opérant une flotte entièrement électrique. Je dis, bien, première ligne de BRT au monde opérant entièrement électrique. C'est loolu ba pare ñu jox ko un prix pour nous nga un financement C'est ce ma nga am Londres xam nga ne ñoom bu doon ay nit ñu baax buñ jël ay nit ñoo xam ne Sénégal moo leen tax a du ñu ko nëbb waaye CETUD moo def communiqué biral loolu pour wane ne président Macky Sall li nga xam ne moom la bàyyil Sénégal li nga xam ne aussi bëggoon naa ko leeral parce que gis ngeen démb ñu ne président Macky Sall dañoo def benn pétition pour mu bañ a dem Colombia xam nga ñoom seen spécialité mooy sos fabriqué ak internet parce que comme xam na ne affaire baa ngi leen di waaj rëdd ñu ne dañu jéem a def beneen sos parce que depuis président Macky Sall nekk tête liste dañoo jaaxle lu ne ñu koy def ñu daal di wax ne dañoo def benn pétition pour ñu bañ a invité wala repousser invitation président Macky Sall Colombia mais dama leen di la bonne information journaliste yi nga information la am tout le temps nañ président la président il n'a jamais été question musul joxe kàddoom na dafa dem Colombia dañu ko invité son calendrier chargé sax 4 daf ko yeneen yu def mu sat donc nous ñu une ci manipulation qui aura présenté, gis dans la presse ñu ne duggal nañ ko ci benn jury pour prix bu mag donc xam nga kooku aduna bi ci bopam ñépp ko soxla donc dama bëggoon joxe information boobu fi c'est une occasion pour que la presse sache que c'est une pure manipulation parce que le président Macky Sall avait décliné le fait d'aller à Colombie yéen ñii di taskat xabaar yi ak waa Sénégal xam ngeen ne président Macky Sall du ko ñuy dàq fenn ndax moom ba mu jugee bopp Sénégal ba tey chômewul te ñëpp xam nañ ko il a moom moo mettre en stand-by ses activités parce qu'il est tête de liste de la coalition Takku Wallu loolu tamit baax na parce que seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel beneen bi nga xam ne bëggoon naa ko leeral mooy information bo xamanteni ni ni ñi wax bobu que coalition bi nga xamanteni ni mom moy mooy takku wàllu ci ay intercoalition buguñu dugg bu baax ci parce que ñun dañuy respecter li nga xamanteni ni la période de propagande pour ñëw nag ci li nga xam ne moom la suñu camarade liir léegi tey dañu woo taskatu xabaar yi pour waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne nii moom mooy actualité bi fi am te li nga xam ne moo ci gën a doy waar dafa toll ci contexte boo xamante ne nii c'est un contexte particulier contexte boo xam ne Sénégal yépp seen xol dafa naqari Sénégal yépp am loo xamante ni tiis la ci ñoom jamono boobu am ñoo xamante nii ñoom dañoo jóg ñu ne dañuy dajale ay koppar te koppar yooyu sax xamuñu lan moo tax ñu koy dajale parce que ñu ngi leen di jiiñ cinq milliards est que dañuy dajale wala ñuy jéem a nëbb xool nan la ñuy lekkee cinq milliards yooyu loolu nag ñu koy lewale loolu dinañ ko gëstu ndax yow ñu lay jiiñ dëmm ngay soccoo yeelu liir ndax jamono ji yow nga nekk parti boo xam ne yaa yor nguur defoon naa ne li waroon doon seen yitte moom mooy ñu xool nan la ñuy fexe wal population wu Bakel nan la ñuy fexe wal population wu Matam nan la ñuy waxe fexe wal population tuuba nan la ñuy fexe ñooñu xam ne tey fa ñuy fanaan amuñu ko ñu ngi ci mbedd bi amuñu lu ñu lekk seen oto yi yàqu na tey jii xale yi jàngiwuñu ñu nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne amuñu courant amuñu ndox ndax dafa am fleuve bi gis ngeen la nga xam ne moo fa am ñu ne dañuy woowee ne grand théâtre dajale alal pour dem ci seen campagne te dajale boobu comme ni ma leen ko waxee dañ leen di jiñ 7 milliards nag yoo xamante ni ASER nee na dañ faa lekk 7 milliards te leeragu ONAS ñuy wax ne am na alal juñ ko luubal leeramul ñu ne léegi dañuy dajale pour te te yéen ñi daa gis ne ñoom bu ñu musaana lancé campagne en une journée ñu ne cent millions bii quarante huit nee nañ vingt cinq millions la ñu gis ngeen waa ji le premier ministre bu daan def conférence de presse ñaata fii moom jaram ay tas kon xalaat ngeen gis ngeen léegi ñaataa ci ne kooku fu muy jëlee ñu ko cotiser lu mu campagne yi alal jooju nag moom wax dëgg yàlla juróom-ñaari weer ñu lay jiiñ milliards nga bëgg koo lewal nañu xam ne du lew parce que bu in altine incha dina am ay citoyens yoo xam ne nañ porter ci procureur pour que xaalis boobu wax dëgg yàlla mu leer pour waxaat leneen mooy li nga xamante ni nii le ministre Birame wax na ko fi sànq tey jii gis nañ économie bi ni nga xamante ni noonu la taxawee xale yi ñi ngi ñàkk seen liggéey ñi nekk secteur BTP liggéeyatuñ jakartaay amatuñu client courant mu ngi coupé parce que gis ngeen à travers le pays tey dañuy ñu mosal ñi bu subaa ñu mosal ñi te loolu ku ne xam na ne génnoon na ci réew ba Sénégal commencé di jaay électricité ay voisins ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy ambulants yi amatuñu fu ñu jaayee gisatuñu ku ñu jaay étudiants yi nga xamante ni depuis 1960 kenn musta xalaat ne da ngay wàññi seeni bourse tey jii ñi ngi mébét wàññi seeni bourse mais bi étudiants yi jógee ministre bi jóg ne amuñu xaalis moo tax ñuy wàññi fay 7 milliards dese 7 milliards tey jii ku ne xam nañ ne ci wàññi salaire yi la jëm président Macky Sall fukki at ak ñaar yi mu nekk ci bopp réew dafa mus a wax FMI ne leen lii nga xam ne mooy subvention yi duma ko mus a dindi te yoolu yéen ñépp gis ngeen mu doon xeex bu metti boo xam ne dafa doon entre le président ak FMI tey jii FMI ak banque mondiale ñoom nar nañu am li ñu bëgg ci couple bii fi ne muy jomaay Sonko xaw ma Sonko ak jomaay xaw ma nan sax laaj ci wax wax couple la beneen bi mooy ñoom dañu nara wàññi subvention yi te bu ñu génnee subvention yi courant day yokk ndox day yokk ceeb dawlin lépp loo xam ne denrée de première nécessité la day yokk ci réew lépp parce que dañuy waaj a dellu subvention yi te ñiy dem marché tey xam nañ ne dëkk bi metti na mbir yi sonn nañ te yëf yi yokk na waaye loolu boo ci biddee day day boo ci boolee dindi subvention yi xanaa da ngaa bëgg rey Sénégalais yi foofu nag lañ dem te jàpp naa ne jamono boobu nag la ñuy wax ak yéen bi mooy ngeen gis ne dañu fi présenté li ñuy wax SNT Moy Sénégal stratégie nationale de développement y a ngi SNDS moy stratégie nationale de réduction de la pauvreté ñun bi ñu dañu dañu amoon yoonu yokkute ñu fekk fi stratégie nationale de réduction de la pauvreté Nous développement prioritaire fekk stratégie de croissance accélérée ay nit xeltu daal di defar la nga xamante ni mooy plan Sénégal émergent boo xam ne yéen a ngi fàttali ko ba ñu ko présenté ci jour bi la bailleur yi teg alal ju bari ci table bi pour financer et le président avant muy def loolu dafa jël de mesures fortes wàññi li nga xamante ni mooy dund mais loolu dafa doon loo xamante ni c'est du concret sénégalais yi dañ ci teg seen bët te durant le magistère du président Macky Sall avant chaque semaine carburant da daan biñu bi ñu fi nekkee lépp da ngeen doon gis né amna na benn cohérence ak linéarité bo xamante les prix amon na stabilité des prix et le ministre du commerce mini fi xamna né naa ne l'ancien ministre du commerce dina mën na si ñëwaat ñom nak ñu ñëw ñu né ak SND 2050 te président Macky Sall bi mu amee PSE dañ leen Sénégal 2035 xam nga ñun dañ leen di jox rek les preuves mais xam ngeen ne mbir mi copier coller la parce que yéen ñi ko déglu ay borom xel ngeen te waa ji ko présenté ba mu nekkee Fatick yàlla def na kii moo ko jëloon mu koy waxal moo tax xam nga àdduna moom sooy def rek defal jàmm ndax xale yi ko defoon yépp xalañ lool ñu ngi fii ba tey moom fi mu toog ñaari différence rek moo am diggante boobu ak léegi jour boobu amuloon sikkim te bii dafa am sikkim donc loolu rek mooy différence et benen bi mooy kii ñëw léegi dina ci ñëwaat ba paré alal yu bari nag lañ ko fay parce que ñi ngi dégg sax ñu ne fay nañ ko 2000. parce que cabinet privé comment ay fonctionnaires yo xamante ni parce que fonctionnaires yi présenté SND 2050 c'est les mêmes fonctionnaires ñom ñoo présenté un plan Sénégal émergent c'est les mêmes fonctionnaires qui ont donné les chiffres c'est les mêmes fonctionnaires du ministère des Finances qui sont encore là. Ouais, est-ce que nous avons Et je voudrais vous dire ici que man député là, parce que dama nekk trois législatures def à l'Assemblée nationale li nga vous savez, moom ay finances publiques li ñu ko mën a quantifier wala ñu wax ne lii baax na wala baaxul mooy élèves ak loi de règlement dañoo woote ay LFI loi de finance initiale def ay loi de finance rectificative suñu paree dañu koy yóbbu cour des comptes cour des comptes certifie ko ànd ak comptes yi indi ko assemblée loolu la wax loi de règlement te fii may wax ak loi de règlement 2019 2020 21 ba 22 woote nañ ko ba pare avec des comptes certifiés par la cour des comptes fii may wax ak la loi de règlement 2023 si vous vous rappelez bien lors de la session extraordinaire bi Diomaye woote woon indi won nañ jox ñu ko parce que mom moy bi ñuy après ñu retirer la loi de règlement donc loi de loi règlement avec des comptes certifiés par la Cour des comptes et sur la table de l'Assemblée nationale benen bi nga xamanteni moy yi ñuy wax ni vous allez dégg ngeen FMI te loolu Pape Malick dina ci ñëwaat euh, bu baax baax ak ay détails échelle yi Ousmane Sonko moo taxaw yeen ñepp ngeen koy dégg aduna bi mu né déficit bi dañ né 10 la yeen ko dégg éliminé ko li ngay wax dara ci dëgg non seulement déficit bi 7 la et quel 7 points mais bu fekkee ne yéen nii ngeen jël wàññiwu leen ko ça va aller au-delà de 7 loolu tubaab la français la mais il faut ñu càmbar ko ci war nit ñi xam ko FMI dafa ne daan ne dafay xaar li nga xam ne mooy Cour des comptes certifié li nga xam ne moom la ñu mais mom nga gis si réseaux sociaux yi ñu naan le FMI confirme le premier ministre c'est pas vrai waxuñu dëgg de dañuy sos rek parce que lolu moom mooy seen marque de fabrique li nga xam ne nag mooy plan bi ak PSE dirëm euh, ñëw na sànq ci similitude yi ba jox leen ay page parce que daf ci am yoo xamante nii wax na ko sànq mooy proacti proactivité bi copier coller rek mais nag bu ñu réussir nag parce que xam nga dafa am ay ci biir ñoo xam ne dañoo xarañ mais dañ leen a fay rek ñu liggéey wax na par exemple page 60 bu PSE daal di lire liñ ci bind document baa ngi yéen ñëpp nañ leen ko jox parce que li ñuy wax ñun duñu wax sànni dañuy wax ak des preuves à l'appui boo la page 79 pour S.N.P. 2050 nous def ci la même chose xam nga lan la ñu euh, changé mooy dañu jël agriculture industrie mine et tourisme les mêmes programmes lañ ci def mais seule différence yi moom mooy dañu jël développement remplacé ko ak acteur économique loolu lan mooy différence dañoo jël ñaari fan jël développement rek daal di koy parce que xam nga loolu boo ko dugalee ci internet ci intelligence artificielle c'est si du benn pour wane copier coller bi parce que li ñu leen di wax nii nag ay documents yu wóor la SND mi ngi ci internet bi plan sénégalais émergent bi ngi ci Sénégal mi ngi ci internet bi donc lépp da ngeen di gis copier coller bi nga xamante nii def nañ su comme ça dañuy def copier coller vous xamante ni des ambitions vous avez des Sénégal vous dem ci kanam ñu ne parce que l'État c'est une continuité te savez, ne nous na ne ñun yéen gis ñu def PNAD le plan national de développement et des des des territoires mu doonoon loo xamante ni am lois loi d'orientation boo xamante d'aménagement des territoires nous ñu voté ko à l'Assemblée nationale.

yàlla moo ñu sàkk ñun ñëpp te ñoom ba ñuy def loolu mënuñu woon xam ne ñi nga xamante nii ñooy parce que président Macky dafa jëloon ay ndaw yoo xam ne yàlla daf leen may xam-xam ñu am jaar-jaar baaw baaw baa ngi nii bii moom moo àndoon ak PNR bi jigo moom a ko wax léegi moom la liggéeyoon moo tax bi ñu ñëwee ñu changé baaw baaw bi defar yeneen car non ñii dañoo cuune la ay cuune lañ ay nit lañ ñoo xam ne bëgguñu réew mi ay nit lañ ñoo xamante nii xam mënuñoo liggéey amuñu expérience amuñu carte d'adresse mënuñoo wax loo xamante ni nii Sénégal mën nañ ko dégg lu dul saaga wax lu ñaaw def ay bur ministre des affaires étrangères ci la dëkk dégg ngeen barki Dembo Ndiaye ministre de la nga xam ne jigéen dañ ko jox cër dañu ko màggal ñu nekk ci octobre rose wax dëgg yàlla gàcce gi ñu am mu taxaw ci Sénégal yi daal ne Abbas su dee yow yaa lekk yaa sàcc yaa tay ministre de la santé dem Fuuta ne CV bu ma jot damay xool ndax Pastef la bokk ngeen yaakaar ni ñii war nañoo yàgg ci réew ngeen yaakaar ne ñii war nañu fexe jox leen leen leviers législatifs pour ñu continuer diriger réew je pense que sénégalais yi xam nañ lan lañu war a parce que ñoom ñoo wax parce que affaire bi yàggul xam nga liñ naan réew moo waxee ba jël ko doo wax ba defar Ousmane Sonko boo leen seetloo ñu bari dañuy wax waa APR fu ñu nekk les ministres parce que Ousmane ñun jëluñu koy tontu baara koy tontu ndax mom bis bu waxee dara rek xalé yi génnal ko benn baax parce que lepp la wax sos naa sosa sos ba fim toll ni sax il continue avec ses ministres à être arrogant le DG de la CDC war na toog moom nga xam ne yaayam ci administration Macky Sall la bokkoon te yàlla xam na ne ñun ñëpp d'accord ñu woon ci li yaayam daan def tojul fen mais comme jigéen la musuñu ko wax loo xamante ni lu ñaaw la lu tegg na mais ay nit ñu yor ay responsabilité commencé développer benn arrogance boo xamante ni sénégalais yi ci boppam ñi leen faloon sax jëppi nañ leen vous avez entendu le directeur général du port ba ñuy juddoo ba léegi bato joolaade ñi ngi jooytu ndox mi waaye ñi ngi doogu gis bato boo xam ne ci port jékki-jékki rek suuf loolu kenn mësu ko gis démb bateau na parce que mon talul liggéey mënul liggéey xamul dara il est arrogant et il passe son temps à tout faire pour diviser ce pays Rwanda li ko yàq moom mooy ay propos yoo xamante ne ni dafa indi ay guerre yu doy mais toog nan ay il faut balayer le le nettoyer ce pays xam nga ne lolu ku koy wax séparatiste nga bëgg doon te lolu nak du ko nangu ci réew euh, xam nga Sénégal mo amatul ngor ndax en général bu la nit recruter jàppale la wutal la liggéey même bu fekkee ne politiquement bokk leen ay kii di nga am loo xam ne di nga ko jox waaye yow jël la jël sa yaay muy liggéey tey nga taxaw am arrogance boo xamante ne nii moom ngay wane vis à parce que am nga responsabilité c'est parce que xamoo lan mooy responsabilité. Euh, beneen bi mooy xam nga li ñu xam yëpp dafa bari mais ñun dañoo am yar am république xam république. xam nan la état di dox ñun nekk ñu ñoo xam ne dañuy nekk dans l'administration chaque jour ñu xëy di dénoncer des choses yoo xam ne xam nañ je pense que loolu aussi lu ñu war a bàyyi xel la beneen bi mooy pour terminer wàllu décentralisation ci cadrage bi euh, Karim dina ci ñëw bu leen le le président Macky Sall bi mu fi nekkee dafa amoon lu ñuy woowee ay séeréer yi séeréer proposé au conseil des collectivités territoriales à travers les assises nationales parce que président dafa teg acte droit de la décentralisation ou la communalisation intégrale parce que si on a rendu la dignité aux communes rurales et maintenant je vais donner un exemple parce que le maire de Fandel est là mon PCR mais les dañuy que le maire nous contente. Le président a rendu la dignité aux populations rurales de ce pays Vous leen l'électrification rurale Où leen de production vous leen ndox vous leen forage

soxor sax mën ngaa soxor ci sa yëf waaye sénégalais yi jël 54 quatre pour cent fal leen nga daawal 6 mois sénégalais yëpp di rëccu loolu musiba naaru laay et si on fait pas attention on va vers des inconnus damay terminer rek di wax ne dañuy demander encore une fois ñu libérer nos camarades oui, Amman Suzanne Kamara qui est détenu arbitrairement qui est un otage politique qui a été arrêté seulement parce que n'est-ce Ousmane Sonko waxul dëgg mais Ousmane Sonko ci n'as pas dëgg le deux ci la dëgg Quoi comme ne du wax le mais tu n'as pas ne le commissaire Kaita, c'est un candidat sur la liste Takoualou au Sénégal donc nous demandons de libérer qui nga xamanteni ni moy suñu candidat pour que nous puissions battre battre campagne parce que ñom ñi Le président Macky Sall homme d'état un homme réfléchi un républicain un père de la nation a fait voter une loi d'amnistie pour libérer ñi nga xam tay ñoo nek président ak premier ministre parce que suñu nous bàyyi ci kasso def dictature comme ni nga xamné ne la ko ñu bari di je pense que tay bi ñu tollu mais ñoom nak ils veulent installer une dictature dans ce pays l'adjo il est détenu arbitrairement et l'adjo Diop lan lañ ko jappé diw jox naa ko 7 milliards ñu japp mais amna ku ñu wax né jox nañ ko 7 milliards wa légui nak soit nañu bàyyi lat wala ki ñu jiiñ 7 milliards ñu jàpp donc lii mooy wax ji parce que ba tey waruñu benn document la presse nañu waxante dëgg na loolu tamit ngeen dénoncé ko dañ ne dañ ko jox am na keneen ku ñu jox 7 milliards. alors da lañu wax dañ ko jox 7 milliards rek mais kii tamit jiñ nañ ko te jiñ booboo gën a dees ndax yàggul 7 mois bu ONAS bi nee nañ jiñ nañ ministre bi ministre bi moom bu amee jom la première des choses mooy comme entendre nañ l'ancien DG. moom mu et se mettre à la disposition de la justice parce que nit day am gor, nit day nek éthique waaye sept mois ñu commencé leen ji ñoo xamante ni te xam naa enquête yii moom ak dénonciation yi am na fu mu jëm boo xam ne yuuxu dina jub foo ko foogew lii daal mooy li nga xam ne bëggoon nañ koo faram-fàcce balaa ñuy jox euh, ki nga xamante ni